wéy leen di gën a abonné ci seen site d'information bi di di ci Rewmi TV li ci Rewmi TV di site d'information bi leen di jox mboolem xibaar ci à temps réel dal leen ak jàmm ñu dooree xibaar yi wax ci mbirum tàggat yaram ak làmb géejuwaay nag seen ko doom jooje di Lac de nekk ca garde à vue talaata ji ñu daal di weesu Lac 2 bu wàllu nag boo moytuwul yéenekaay bi nag danañ ko defeere ca parquet ba gannaaw di nga xamante ne si def na fa ñaari fan yoo xamante ne si nga ca commissariat naka noonu nag jatoo bu wàllu nag koy toppee moo di nag ay mbir yoo xamante ne si mu ngi laxasu ci wàllum wàllum visa loolee nag tax ba nëgg nag moo nga naka la ñibbisee France ba mu ne cib nag foofu la ko gars fekk këram daal di ko yóbbu nag ca commissariat ga wala nag dañ koy déglu ba noppi daal di koy bàyyi lu mu ci doon lu nag doon na mbir moo xamante ni si na lool ñuy yëngatu ci wàllu làmb bëgg nag fintooni ab médiation ngir Lac de Guiers moomee delluwaat ci li nga xamante ni mu di ay activité ndax si jamono ji nag moo ngi ci guddi bët setagul gannaaw naka bu ñu koy toppee lu ñeel naka wàlluma njuuj njaaj ci moom nag euh, le jàtto bu waalo di lac de de mu di loo xamante ni itam dara du leen ci ëmp xibaar lépp leen ci am rek daan leen ko yeggee ci mu gën a euh, leere ci mbiru lac de guerre boobu nga xamante ni si dañ koy toppee ci wàllum trafic ak escroquerie ci wàllum euh, visa beneen xibaar xibaar bii naka du neex ki nga xamante ni si moo di ndaamal kajoor di Idrissa Seck doomam jooje naka di Abdoulaye Seck moom la ñu daal di arrêté koy arrêté di ko ko toppee naka lu yéeme yéeme la moom moomee nag di doomu Idrissa Seck boobee na nga xamante ni si jamono ji moo moom la ñu fekkoon ca ñoom fi ñu toll nag ñu jàpp ko koy toppee cey Sénégal chaque jour ak kaa bu bees beneen xibaar Bassirou a bale nommé na juróom fukk ak ñaari nomination la def ni ki démb ci conseil des ministres ca ñoom ñaar fukk ak benn secrétaire généraux ak fanweer ak benn directeur généraux bokk na ci ñi ca a ràññeeku Aïda Mbodj Habib Sy Dame Mbodj capitaine Mariam Soda Ndiaye ak li nga xamante si moo di ay jigéen te ñoom nag toll nañ ci juróom benn ak fanweer ci fanweer ak benn directeur généraux yu ñu daal nag fukk benn secrétaire généraux yi nga xamante ni si Bassirou Diomaye Faye ni ki démb jël na si dogal ngir rek tabal leen ay ndongo tànk beneenu xibaar boo xamante ni itam yitteel na lool askan moo di dossier yu yi bokk na ci nag fond force covid 19 nga xamante ni si mille milliards yi doon wax dafa am lu bëri loo xamante ni si jaarul ca yoon fañ ko war a jaarale gars yi dañ ko goxi fi ñu toon nag dañoo bëgg a xoj gars ñu goxi ko nag la yoon dal dee bëgg a def nag yéen seen rapport ndax cour des comptes dina ko samp am déet lu ci doon ne fi mu toll teg bët moo di junney milliards ñu dajale woon naka ci jamonoy covid 19 te gars yi si bëri naka ñu rawale ko loolu nag la gars yi a joxar bi ba xool nees war a def rek boo ñu ko góoxoon dal di koy goqi la tax kon nag ba fintoon yi yoon dal di teg bëtam ci mbir moomee leneen la ñu a teg suñu bët kay mooy fintoon yi ku tiituti tamit jaaxle nga ndax itam bés Mariama Niass ci autoroute à péage bi ay oto yu fa raj-raj loo mbëkkante bu faat kenn nag ak ñett ñi nga xamante si ñoo ñàkkoon seen bakkan ca foire bi doolee ko ci benn googi nag mu dem ak dëkk ne fala budda nag lii di ay dogal moom faaw ñu jël ko ndax lii di am ci tali bi nag mun a tëweey ndax mënuñoo dëkkee rek tali bi di yóbbu bakkan yi te loolee moom faaw ñu jël ci rek taxaw ci bépp oto boo xamante ni itam jàpp nag ni ki démb lañ ko de bus rapide de transit mu di nekk nag loo xamante ni ci El Hadji Malick moo ko daal dee jiite ni ki démb moo daal dee yëkkati kàddu yooyu nag fi ñu toon yi dalal xelu ni ne fi yi nag daanaka la ca war yëpp nag daanu ko def bu fexe boo tali bi moom mun a muccal bakkanu doomu aadama yi ñu dëkkee faat bés bu yàlla sàkk dafa doy de bakkan yi di rot rek kenn xamul li lan la wéy leen di gën a abonné ci seen site d'information bi di li ci réew mi TV ngir benn xibaar bañ na rëcc jër ngeen jëf